woote woon consensus citoyen pour la république du lu bees 2006 décembre ba léegi ñi nga xam ne ñi ñoo ko séq nekk ay góor ñoo xam ne ñi ay professeur d'université lañu ñi ay boroom xam-xam lañu ci façon bu nekk dañuy waxtaan pour xool li jëmale réew mi kanam moo tax tey ñu waxtaan bi ñuy waxtaanee. mbiru Dakar la ñuy waxtaanee ndax fan yëpp coow li bari na maire Dakar dañ koy nommé duñ ko nommé loolu gëm nañ ne recul démocratique la boo xam ne falaakuli ale ñi ko wax mën gëm naa nekkul ci xelu ki nga xam ne tey moo jiitee réew mi xalaatu ko wutu ko bugg ko beneen bi mooy 19 communes yi nekk Ndakaaru ndax dañ koy bàyyi noonu mu nekk 19 commune wala ndax da ñuy boole yenn commune ndax ñu gën a am doole kooku borom xam-xam yi nga xam ne ñoo doon def conférence bi wax nañ ci seen xalaat li am solo daal mooy réew mi dal am ci jàmm am ci lépp rafet ñun loolu mooy li nga xam ne moo ñu utile muy consensus citoyen pour la république bi nga xam ne man Abdoulaye Fofana Seck maa koy jiite faru mën a gauche faru mën a droite man ci Sénégal rek laay te tax tey boo gisee tey ay kàngam yu bari pouvoir opposition teew fi cooy ba sama xarit la ñëpp xam nañ ni mu mel ci Khalifa Ababacar Sall sës rëkk nekk di jouer role bu am solo ci moom noonu aussi cër boobu rek le professeur Luc Sarr am ci président la république kon tey ñëpp a fi tase waxtaan waxtaan bi ñu jàng ci lu bari population Dakar kontaan ndax Dakar mooy xolu Sénégal dakaar nag ñaari ko seq ñi fi fekk baax ak ñi fi baax fekk. waaw man damaa ñëw ci waxtaan bi tey ak sawarte bu bëri ndax liñ fiy waxtaanee mbirum ndakaaru lañ fiy waxtaanee te ku waxtaanee mbirum ndakaaru waxtaanee Sénégal comme ni ko Abdoulaye Fofana Seck waxee. dakaar da nga fiy am na formule bu muy utiliser nee na Dakar da nga fiy fekk baax wala baax fekk la fi donc Dakar Sénégal yëpp la concerne moo tax bu ñu wootee daje yu mel nii foog ma ñëw teewee ko déglu ñu ciy wax bu ma ci amee xalaat aussi ma yeggal leen ko loolu laa def. naam sax ñay wax loolu bañ koy wax ñoom waxaguñu bokk ne maire bi président moo koy tànn waaye ñoom dañoo. ci seen biir wax dañoo xool comme royukaay ay gox yoo xam ne ñi ngi bitim réew fu ci mel ni Douala ca Cameroun Abidjan ca Côte d'Ivoire Lagos ca Nigéria ne ci ñooñu la ñuy royee li ñu bëgg def te ñun ñu am seetlu ne ñetti dëkk yooyu yëpp ñu lim foofu ñu ko jiite population yi faluñ leen nguur gee leen tànn moo tax ñu am ñu am ragal ne loolu la ñu fas yéene biir Ndakaaru man ma jàpp ne loolu bu ñu ko fas yéenee wala ñu def ko day nekk loo xam ne day jalgati li nga xam ne mooy yoon bi waa ndakaaru am tànnal seen bopp que leen di jiite leneen lii mi mbirum statut spécial bi ñaar rek laa ci bëggoon wax bu ca njëkk mooy bu ñu seppee dakaar ci biir gox goxaan yi nekk Sénégal ne moom dañ koy jox statut spécial dafay mel ni dañuy beral loxo dakaar mu mel ni donc dañuy néewal ña ca des mu doon donc li nga xam ne day nekk rupture d'égalité maanaam yamale bi waroon am ci diggante gox goxaan yi si nekk Sénégal parce que ñoom ñëpp a bokk àq ñoom ñu bokk bokk yellef nga topp seppi ci kenn ne moom ngay def statut spécial dafay mel ni da nga néewal ña ca des leneen li mooy tey bu ñu joxee ndakaaru euh, statut spécial dafay mel ni dañooy ubbi ubbi bool boo xam ne la muy jur du gën ci réew mi parce que bépp gox bu boobaa ci biir réew mi mun nga ne ah lan moo tax dakaar di am statut spécial te man aw ma statut nga laajte ko ni Dakaaru mu mun jur loo xam ne day nasaxal ànd bi ak unité bi nga xam ne moom mooy nekk suñu dëgër laay naam sax amuñu dara réew mi amul dara waaye li nga xam ne moom lañ ñëpp xamee moom lañ ñëpp nawe mooy jàmm ji am ci réew mi ak booloo bi am ci réew mi te ñu donnoo ko suñuy maam war koo sàmm fexe ba jox ko suñuy doom ak suñuy sët. waaw xalifa yéen gëj ngeen ko dégg mais ñun jëgg ñu ko dégg parce que ñu ngi ci xalaat mi ngi ci xalaat moom mi ngi àndandoo ñun ci xalaat parce que comme ni mu ko mujjee wax ci jotaay bi mu mujjee def ak euh, ni ay nitam yi te ngeen teewee ko woon moom Sénégal tey la ko gën a ñor politique tey la ci gën a sax comme nag Sénégal da ko ñor te mi ngi ci politique. moom mi ngi xalaat ci lu jëm ci loolu bokk ci ak ñun di ko xalaat ba pare nag di dem ci nit ñi di déglu nit ñi di wax ak nit ñi di leen di xool seeni mbëbët ànd ak ñoom aussi xool lan moo koy saafaraal loolu nag ñun jàpp nañ ne mooy politique politique du nekk ci rajo yi ak ci réseaux sociaux yi politique mooy nekk ak nit ñi xalaat ak nit ñi trouver ay solution ak nit ñi ndax suba boo soxlaa nit ñi ñëw fekk si la te bu la yàlla dimbalee ba nga jot ci li ngay wut nga mën a xam lan la nit ñu soxla nga faj ko. ndakaar dafa nekk loo xam ne dafa am lu ko yàlla teg mu nekk ko lu ko wutale ak yeneen diwaan nekk senegal boo jëlee téere mi def ko ci téeméeri pàcc dakaar ci na mu toll matu ci sax benn ndare nag boo jëlee réew mi def ko ci ñeenti pàcc benn ba dakaara ko moom ak lu ëpp Dakar ko moom kon. na mu toll wuute nag la mu am ak la mu doon ndaxte moom rek ci réew mi moo fi nekk diwaan boo xam ne am na doole joo xam ne dafa ubbeeku ci bitim réew maanaam dafa nekk une ville mondialisée dafa nekk une grande métropole li tubaab di wax métropole bu rëy boo xam ne lëkkaloo na moom ab yi lépp ci a nekk lépp solo ci réew mi Dakar kon tey ji su fekkee toll nañu fii ci réew mi gis nga Dakar duna bëgg a yokk raayaam ci àdduna ndaxte raaya Dakar fu mu gën a sore rek réew senegal fi lay gën a sore Dakar moo ëpp solo ci réew mi kon war na xool tey jii naka la nekkee naka la tëddee def ko nag ci ay xaaj fukki diwaan ak juróom-ñeent mu nekk Dakar te ñëpp nangu nañu ne fukki diwaan ak juróom-ñeent yooyu bi nga koy tabb wéeruwul leneen lu dul ci wàllum politique ñun nag tey jot na. ñu xolaat loolee saafara ko parce que méngoowul ak tey nekkinu réew mi ak nekkinu àdduna ci kaw loolu loolu mooy wax ci yëpp foo la nekk nu nuy def lan nañu def ba Dakar li ñu namm ci moom mu nekk xolul réew mi nekk suñu raaya tey ci àdduna Dakar boobee tey naka nañ ko war a taxawale taxawaay bi gën a méngoo ak li bëgg ci moom loolu nag aussi xam nga ne doon loo xam ni euh, nekk na lu bees déjà rek Dakar nekk na ko département de Dakar amul benn ville la ville Dakar rek la loolu amul fenn donc am na statut spécial loolu la nit fàtte ci waxtaan wi Dakar ci boppam dafa nekk déjà dafa am déjà un statut spécial parce que bu ñu nee département kay ay commune yu bari bari mu nekk département léegi Dakar ci boppam rek rek ci biir Dakar la am ay kii mais Dakar ci boppam mais département la. commune de Dakar département la kon boog loolu déjà spécial la kon boog bu ñu nee def ko spécial du lenn lu muy loolee mu nekk mu nekk spécial nam ko nekkee ñu soppi ko waaye nekk na ko ba pare nam ko nekkee nag nañuy soppi loolu rek la. Euh, dégg kenn déggu fi président de la république ministre premier dara amul kenn ku fi dégg ku wax loolu am na ñu koy wax ah ba dëgg yàlla réew mi nag ku nekk am nga sañ sañ wax sa xalaat li bon kay mooy nga féetal lu ko tun wax gun ko nga tuumaal ci loo xam ne xaw amul lenn foo ko mën a wékk ne firnde leen ñoo ko wax amul dara lu wax gum suñu biir dana am waxtaan bu demee noonu naka nañ jàppee gis-gis ban gis-gis na am ci statut spécial Dakar boobu dañ koy waxtaane danaa am ay point de vue mën naa am man sama gis-gis mi ngi wut ak li may dégg nii man yaakaar naa ne man mii fi may wax ak yow tey jii di jàpp naa te yaakaar naa ne nit ñi dañoo war a bàyyi ñu fal maire boo xam nga ne man mii loolu laa xalaat am na ñeneen ñoo xam ne xalaat lañ leneen waaye sama xalaat loolu la te bés bu amee nag bu jollee ci biir parti bi mu gën ko wax nu ko yaatal ci samay kàddu ak sama kàllaama